boobu fekk ne ak seegul fii nga xam ne kon xaaruñ bu dem bu ñu soog ci wax bañ ciy wax dañ ne réew mi fi mu jëm nii mënuñ ko bàyyee nii ndax am na foo xam ne bu fa àggee ñëpp ay ñàkk léegi nag ñu bañ ñëpp ñàkk kon nañ def ay waxtaan nas bi moo nekkoon këri diine yi ak fenn fu ne dañ fay dem bu ñuy waxee ndànk na ba fexe ba ñoo ñëpp ñëpp ñu déggoo ci benn affaire ñu ne kon réew mi nii lañ ko bëgg fii lañ bëgg mu jëm kon nañu oote bu boobaa du doon oote boo xam ne président de la république moo ko fii yëf yi dafa leerul ci boppi kenn comme leerul ci bopp kenn moo tax ñu wax nag ñun kuréel bi bu ñu ko defee nañ fexe ñu déggaat bu ñu mënee dem daje kilifa gi ak kilifa gi bu ñu mën di dajee nañ dem décision rek seeti condition yi lañ bëgg a créé pour nañ koy waxtaan parce que bu ñu fàttee Sénégal warta yem warta yem ci fenn yemul ci Moustapha ci comment il s'appelle Ousmane yemul ci Macky Sall yemul ci kii yemul ci Sénégal.